salaamaaleykum mbokki xaritu internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seetaan seen eh, seen chaîne bii di El Média ci seen biir émission mode style tey nag dañoo doxantu woon ñëw fii ci Sicap Mbao ci biir marché bi ñëwoon seet si ndaanaan loo xam ne naa la kenn dootu ko présenté mu nekk un grand commerçant nekk nekk fii ci Sicap Mbao moom la ñuy seet yi laaj ko naka la gisee li nga xam ne moom mooy commerce bi fay naa la sama jaww ji. mbokk yi xaritu internet yi. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama gars yi di nuyu waa marché bi su lii amee yëpp à cause de waa Sicap Mbao la. Mhm. di nuyu waa Sicap Mbao di leen sant di leen gërëm. alors Vieux bëggoon nañoo nga wax ni tuuti rek kan mooy Vieux Ndiaye. waaw Vieux de benn jeune la bu nekk Sicap Mbao di daan dooleem waaw di jéem a innover quoi parce que soo gisee yére yi may jaay ma gëm ko. nekk parce que dama xam ni dafa raar moo bëgg a ñëw innové nag def lu kenn deful quoi. Mhm. alors ci biir euh, ci biir innové euh, boobu noonu nga xam la dugg commerce. Ah, ñun commerce nañ am nañ 10 ans 11 ans parce que cosmétique lañ doon jaay. ci mhm. li le premier mars lañ ci dugg. Mhm. le premier mars lañ commence jaay waaye wax dëgg fa yàlla bañ si duggee ba léegi ñoo si gis suñu bopp. ñun ay commerçant lañu woon ay cosmétique la doon jaay. ñu dem ba cosmétique bi xam ne léegi gisatuñ sunu bopp. te ay nit la ñoo xam ne dañuy toog sax di waa dem ak suñu xel. di xalaat. di xam ne lii suñ si duggee ak suñ ko indee secteur bi dana nekk innovation te jeunes yi dañ si ci seen bopp. Mhm. parce que ay jeunes lañ quoi. alors dañuy delluwaat tuuti ci ginnaaw nga wax ñu euh, cosmétique bi naka la def ba doxul da nga daanu wala xale yu jigéen ñi ñoo la daaneel. waaw ñoo sant yàlla sant yàlla parce que munu nekkul xale yu jigéen ñoo la daaneel. Mhm. parce que cosmétique bi dañoo dem ba ni doon gisee njarte bi bëreetul. Mhm. à cause de autoroute à péage. yi nga xam bi jaay bi doxatul noonu. Mhm. ñu ne kat yoon la parce que lu sëñ Cheikh waa lu sëñ Cheikh doon wax rek nit ki foo nekk gisatoo sa bopp jóge fa. Mhm. balaa leneen di la fekk. Mhm. parce ñu rëy ñu. rëy boo xam ne tey suñ fii suñ fi yàlla defoon safaan bi noonu gisatuñ suñu bopp dañu xool leneen. parce que ay jeunes lañ karaw bu ñuul lañ yor. rus ñu def dara quoi. sàcc ak fen nag la ñu rus a def ko waa léegi lan moo la poussé réellement ba nga dugg ci commerce bi. waaw commerce dama ko yàgg bëgg nag parce que sama yaay sax damay tooj naan ba ma nekkee xale dama noonu ko jëloon ma ay socc bay jaay dafa nekk loo xam ne dama ko yàgg bëgg quoi commerce waaw may ne xale ba léegi quoi alors léegi bu nga ci duggee ba léegi lan moo la ci gën a neex ah lu ma si gën a neex mooy xaalis bu ma jël jox sama yaay moom mottali dem màq yóbbu ma ko màq de moom mottali moom dem màq waaw si laa tax sama jabar si laa yor suñu kër si laa tak am samay dong lépp wax dëgg fa yàlla gisaguma si pertement daal gisagoo ci pertement léegi lan moo la ci gën a métti ci duggee ak non wax fa ah xalaataguma si lu ma si gën a métti quoi parce que chaque jour lu ñëw rek man dama naan yàlla la mhm. dama doylu quoi mhm. waaw lu ma si dal rek dama naan lii lu si waroon dal la te mhm. boobu léegi yàlla mooy amaguma si déception quoi avec ça alors yi nga xam ne ngay jaay vieux fan nga koy waaw ah, yére yi am na yu jóge Turquie am na yu jóge Chine am na fépp quoi beneen sax fu ne fu ne la ñuy jëlee yére parce que sunu gars yu bari day dem ay Chine ay Turquie di ñu koy indil. Mhm. ñuy indi di ko indi Sicap Mbao xam ne Sicap Mbao dafa comme yenn qualité mhm. manqué na yenn comme qualité dàll lépp moo tax ñuy innové di si def sunu alal alal boo xam ne moo ñu lew dañ koo liggéey ñàkk ko di ko indi Sicap Mbao pour jeunes yëpp gis seen bopp xam ni lu ñu uti Dakar am na fii. Mhm. ñun loolu lañ bëgg waa ñun waaw. d'accord mbokk yi xaritu internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seen chaîne bii di Elvision Média tey nag dañoo ñëwoon fii ci Sicap Mbao eh, seet si ndaanaan nee naa la kenn dootu ko présenté alors vie dañuy des ci wàllu eh, yëre yi ba léegi ñi ngi jëm ci sedd yan façon yëre nga indil ñi nga xam ne ñooy say clientèle waaw yëre yi ñu indi bëri na indi nañ ay pull ay cuir ay jacket indi nañ ay blouson lépp daa indi nañ ko lépp boo xam day dimbal nit sedd rek indi nañ ko te xéewal lañ ciy def parce que xam nañ secteur bu ñu nee ay xale yu am joow fi ne waaye ñun dafa mel ni ñun secteur bu ñu nekkee dañoo fàtte quoi. Mm-hmm. moo tax ñun ñuy dëkk fi ñoo war a di innover di indi lenn ba pare di ko tolloo lekk milieu bi quoi. Mm-hmm. benn instant waaw. alors ci ci wàllu fàtte boobu kan moo leen fàtte. ñun mun nañ ne. Mm-hmm. nguur dañoo fàtte. maire dañoo fàtte lépp dañoo fàtte. Sicap mbaaw nekk na milieu boo xam ni kenn soo fi dëkkul dugg fi. nga gis kër yi fi nekk sax da ngay kontaan. waaye soo gisee tëli yeeg yooyu da ngay xam ne ñun ñii dañoo fàtte quoi waaw. alors yéen ñi nga xam ne yéenay euh, commerçant yi est-ce que am ngeen benn union benn mbooloo boo xam ni bu ngeen waxee nit ñi daan leen dégg. waaw ñun nag sunu marché loolu moo ñu xaw a manqué parce que dafa bëri di yoo xam ne dañuy dund bopp sa bopp. ñu xëyee seen place lañ tal ñu amee lu ñam yóbbu seen kër te gëm naa ni ñun nga xam ne ñoo dëkk fii jeunesse bi ñun loolu dañ ko war a mën a bañ quoi. Mhm. man ku ma gis xam ne bañkat la sunu marché lu fiy kaas dama koy kaas lu ñu fi war a def dama koy def. Mhm. waaw parce que dama xam ni sama teranga ak sama sutura fii la nekk quoi. Mhm. fii la nekk way alors ci wàllu booloo boobu noonu sax ndax des fois commerçant yi nga dégg lu nekk euh, commerçant bi am na problème am na jafe-jafe est-ce que Vieux Ndiaye faral day faral di am jafe-jafe yooyu. waaw benn instant parce que ñu waa lu ñu ne ko am kilifa doo la mhm. ñun lépp lu ñuy dugg ne dañuy waxtaan suñuy kilifa. te waate suñu kilifa dañoo jege soo xefee sa léegi mu fekk la fi. chaque jour dañuy waxtaan ak moom mu ñuy xelal parce que ku la jiit si àdduna moo la mën a teg yoon mhm. naa ñu def leen nii def leen nii pour lu ñu munti dugg suñu kilifa da ko yëg mhm. waaw alors ci walu kilifa gogui tam est-ce que Pa Vieux mi ngi dund ak ay waajuram. bu mu waxee bu jigen wala bu góor itam. waaw sante yalla maa ngi dund ak suma papa. Mhm. maa ngi dund ak suma yaay. Mhm. maa ngi dund ak suma famille yëpp. Mhm. voilà alors soxna ci est-ce que des fois mi ngi comprendre Vieux commerçant la des fois mën na guddee des fois dem yenn xalé jigen ñi fek del ci place am est-ce que jalousie dawul fofu touti waaw parce que wa dëgg fa yàlla bu mu koy takk si loolu fek fekk. dafa fekk ma milieu marché te milieu marché gis na. xale yi dañ lay topp lépp lañ lay topp ba mu ñëwee leeral naa ko yëpp nee naa ko man nitu jigéen ñi la jigéen yi laay liggéeyal cosmétique laay jaay mhm. ba ma demee ma nekk fii tamit dama yor naa yi fi jigéen mhm. jigéen ñi laay nekkal par exemple ma dem bu minuit une heure mhm. am na ñoo xam nañ may laaj ba xam sax yow am nga jabar waaye dama siy sant parce que yàlla mënoon def ma nekk fi ñaar nekk si leneen. waaye fépp fu mu guddee wala fépp fu ma yàgg. sama liggéey moom fa yàggal moo guddee guddeel. Mhm. waaw d'accord léegi ci wàllu xeetu habillement yooyu ngay jaay Vieux Ndiaye euh, jaay góor ñi ak jaay jigéen ñi ban moo ci gën a dox. ah man de si Kamba moom wax dëgg jantal mel ni laa gën a gis quoi mhm. waaw. ñom ñoo wax dëgg fa ma sha allah ñoo ngi sañte gëm nañ seen bop te nit ñi dañoo commencé yewu quoi ay jamono da nga gis ci goor go xamni du tal solo du tal dara waye léegi goor yalla yi ñoo ngi commencé di innover di solo di xamni ni nit da ngay bëgg sa bop da ngay propre dugg sa bop xam yaay kan parce que nit ki so nawé sa bop rek nit ñi naw la quoi dañé sa alors jigéen ñi mom dañoo gisul lu leen toy wala est ce que ñu ngi fiy faral di ñew ñom tamit wa ñoo ngi fiy ñëw ñoo ngi fiy ñëw nànk xam xam nga lo yagul mm-hmm do ci am experience bu baax mun naa goor ñi la experience eh, bu jigen quoi wala ay jigen ñu ngi taqale ñaan nañ yalla tamit ba indi fi yeneen bagage yoo xam ne ciy gën a gis seen bopp tamit alors vieux da nga da nga fas sa kanam ba mu ëpp ba jigéen ñi ragal la wala wala nu mu demee nii exact non de question la loolu parce que jigéen man sama gaayaan lañ man mun naa ni soppeeku jigéen sa laa gën a bëri quoi ni soppeeku parce que du fas konam ku ñëw dañ la ubbil suñu bopp sànq rek fii lañ toog ñoom ñëpp di bëggee moy lolu ma fas ma sama kanam séelé man ñëpp sama gaay la ci Casamance góor jigen jigen ni sa soy xol ñoo mu gëna dugg sax ni góor ñi wax beneen sa exact waaw léegi vie ñaata pré apporté nga am non sant yalla bi rek ci abogu mhm. waaw beneen sa ñan nga yàlla ubbi yeneen pré apporté wala nu wala da nga bëgg dem ci yam ci bi ni rek non xam nga tey jii borom bikkatu mbagg bo gis dem mhm. mag la bëgg ñaan yalla di voyage di dem ay fu nek ci aduna bi mhm. di indi di defar suñu dëkk te lu ñu am Sicap Mbao lañ ko yéene quoi. Mhm. parce que Sicap dañ see gis suñu bopp mun naa ne jàmm gën lañ juddoo. Mhm. fa lañ yoroo waaye ba ñëwee Sicap Mbao Sicap dañoo defaat beneen nit. Mhm. defaat ñu yokku yokk suñu expérience. parce que soo ñëwee si ay nit gis nu ñuy doxee da ngay ñëw ànd ak ñoom. te wax dëgg yàlla Sicap Mbao dama sey gis sam bopp quoi dama sey gis sam bopp baax baax d'accord léegi ci wàllu xeeti abima yooyu la ñuy gis nañ itam seetu bàyyi ñëw yan façon dàll nga indil say clientèle waaw dàll yi bëri na na bak ay tim mhm. hmm? ay neemar lépp si biir daal yi moom bëri nekk wax deug fa yàlla daal jan daal même bi fa dugg di nga gis loo bëgg di nga gis sa point di nga gis lépp waaw jaay dafa cher wala dafa yomb non wax dañ may jëwé ni sax ya gëna yomb la bagage dañ ma koy jëwé waaw parce que rus naa nit dugg. Mhm. ay problème de 1000 francs 2000 duñ tàggale quoi. Mhm. waaw am ñoo xam dama leen di jaay li ma jëndee. Mhm. parce que damay xam ni da ngay bëgg te yoroo. te man damay dal. man lépp lu may liggéey sama bopp laa ci gis quoi. waaw parce que lu ma yéene sama bopp laay yéene keneen quoi. waaw léegi ci wàllu xeetu njaay yooyu ba léegi des fois da ngay gis euh, nit mu jékki-jékki rek ubbi prêt-à-porter dama bëggoon laaj tuuti foofu li ma la bëggoon laaj moom mooy euh, njaay mi dañ koy jàng wala da koy donn non loo gis tamit euh, bul rus. Mhm. man ba may doog a dugg prêt à mhm. ñi ma si jiitu laa njëkk a àndal ñu wan yoon bi. Mhm. ne ma bitig bii mooy jaay bitig bi bitig bi ak lii ngay jënd ak tamit wax dëgg fa yàlla soo yàggee sañse di nga xam lu jekk si nit ak lu jekkul si nit. ñooñu ànd naa ak ñoom ñu poussé ma ñaar yoon ñett waaye ba ma demaatee ma demal sama bopp. parce que li may jënd man doy na ma. te bu ma indee nit ñi kontaan nañ si quoi waaw. alors vieux boo gisee euh, maanaam client client boo jaayee mosul yëre bi nga dajeeg moom euh, lan lay def ci yow. yàlla xam na damay kontaan. Mhm. ma jaay nit mu ñëw ne li nga ma jaay nit yaa ngi koy laajte dafa rafet damay kontaan. Mhm. damay gën a am envie mhm. liggéey. parce que damay xam ne loolu laa bëgg. jaay nit mu gis si boppam ba keneen gisaat si boppam ñëw. loolu dama ko bëgg est-ce que mi ngi faral di am maanaam nga jaay bàmb wala élage mu génn dajeeg yow na la non vieux li nga jaay c'est très joli nit ñaa ngi koy laajte du genre. waaw wax dëgg fa yàlla benn si Bamba. Mhm. damay boole ay nit yu nekk borom. Mhm. ma leen koy ma leen di jaay. Mhm. moom ma copain jom. waaw di leen bëggee quoi ñoom ñaar. dañ may indil ba nit yi nekk Europe. ak sama yeneen gars yoo xam ne ay nit yu nekk Europe dañuy sol yére ñu woo ma. lii ku la ko jaay ñu ñëw fii ne ma fotool ma. ma ñoo ñu commande loolu dama siy sant yàlla jërëjëf. alors vieux yàgg nga ci commerce bi euh, macha est-ce que ñaanoo yàlla tamit maanaam jógee Sicap Mbao dem ci yeneen colwees yu gën a yaatu yooyu. non mun naa ne loo waaye loo am Colobane ay place la. Mhm. de bagage la mhm. loolu soo foo ko foo ko yóbbu. Mhm. def innovation. dañ la fay fekk amul dara na fa nit dugg rek gis boppam. ak milieu bu mu mënta nekk. parce que mun naa léegi Colobane li ñuy dund moom la Sicap di dund mhm. moom la feneen ak feneen di dund soo xoolee sa Colobane ñu fay jënd ñëpp ci banlieue lañ dëkk ah mhm. dëkku ñu fa de fii lañ dëkk te fii la ñu jóge dem jënd mais des fois nga dégg euh, une certaine Kumba wala Bintaana man de bu may jënd yëre je préfère dem Colobane moo gën a yomb yëre moo gën a baax yëre ñooñu lan nga leen di wax non benn instant mun naa ne am nañ ba léegi ci banlieue bi dafa ay complexe loolu laay wax mhm. parce que da nga boo xam day gis sama jeget mu ne noo kolobaan la koy jëndee pour moom bu nekk kolobaan moo gën a baax sama bos dafa am ñoo xam ni jëndee naa Sandaga wala jëndee naa kolobaan wala maa ngi dem centre commercial bi laa ko jëndee loolu mun naa am tiit tiitar si ñoom quoi mhm. te ma lu am kolobaan ak Sandaga moo am fii mhm. wala lu ko gën a mool mhm. bilaay walaay ndax boo xoolee li ngay paas parfois nga jógee si Kambaaw di jël taxi dem ba kolobaan ne da ngay jëndi marchandise nga jënd fa loo xam ni am na fii nii ci say Vieux Ndiaye Euh, nga ñëw rombaat ko fa ne bu ma seen bu ma bu ma yëgoon fii laa koy jëndee alors lan ngay wax ñooñu. non benn instant dama damay wax saa su ne ni ku nekk sa gox. Mhm. ak fi nga dëkk yaa koy gëm. Mhm. man dama gëm ni man su ma jéenee sa ñu ne foo dëkk man leen jàmm mhm. gan laa dëkk parce que lu ma doon jàmm gan moo ma ko def su may jënd yére ma jëndee ko si Kambaaw jeune bu nekk si Kambaaw développé moo ma gënal ma jëndee ko si jàmm. parce que tamit euh, kooku tamit ëllëg mun na ñëw nga am beneen soxla mu fajal la ko mhm. parce que nit bu la jege rek moo la mën a fajal mhm. tey man ñi ma dëkkal nii su ma amut ak ñoom jaam ëllëg ñaan ma ko yàlla suma balaa su noon taax waa waa Colobane duñ ñëw de waa Sika Mbaawee ñëw mhm. kon su ma gisee kuy jaay fii lenn mu ko neree jëndee fee ñëw jox ko si téeméer jënd ko fii moomu gënal man man loolu man philosophe boobu laa am te maa ngi ñaan ñu dëkk si ñu gëm seen bopp

non man loolu maa ngi sant mhm. ma ramaas. mosuñu ma ramaas. si kaa mbaaw mosuma fi am ak kenn problème dem police. Mhm. mosuma fa mosoo xuloo ak say client tamit. non client comme non du ma xuloo client. Mhm. parce que tey noo ñëwee rek noonu laa lay teewee. wala suñu xamee ne mënuñoo def tamit dinaa maslaa yow bëgg a jéem quoi. waaw wala des fois nga raconté client bu nekk des fois sang day day day day jóg alors. Euh, naka la fay demee ku góor kii wala ku jigéen ki kan moo ci gën a neex a jaay. wax dëgg fa yàlla fii moom ma nekk nii man. Mhm. du ma fenn quoi góor moo gën a neex a jaay fii jigéen. Mhm. parce que wax dëgg fa yàlla jigéen ñi neex nañoo jaay sax waaye tamit euh, koo xam ni yorul walla liiwul bokk la koo xam ne mooy dem di liggéey xaalisam di ñëw. Mhm. mun naa ni góor moo gën a neex a jaay secteur bi ma nekk quoi. parce que dafa nekk secteur boo xam ni. baax na yàlla dafa xaw a dëgër quoi waaye nag góor ak jigéen ñëppay dóor waar waaye moo tax góor ñi daal man ñoom laa gën a gis. tey ci wàllu jigéen ñooñu des fois est-ce am ñu fi ñëw des fois di la draguer. waaw bëri na déglu ma la tey soo toogoon na nga naan kii moom moom koñ bi. Mhm. nga ne sax jigéen rek nga may tooñ ci ma mbalak nañu waxante lu ne. Mhm. waaw te lu ma nit wax rek dama koy maîtriser. parce que tamit man maa ne ci milieu boobu maa soxla. Mhm. luma di ñew wax dama koy maîtriser dama koy téye sama xol sum luma ma neexal lu nakari quoi ben essa ci walu jin yoy ngay jaay ngay jaay jin déchiré wax ma yeen façon jin mo fi nek waaw fi amna jin déchiré am na jin délavé am na ay jëngal lepp la di jaay quoi lepp lu nit nga xam na nga koy sol ci sa bopp rek dañ koy jaay quoi ci walu sedd bi tam préparé nga len lu baax waaw sedd bi préparé nga len lu baax indi na bagage yu baax dal yu baax lepp lo xam day fay sedd dal mu nal mu ngi si biir soog Ndiaye Fashion taalibe Serigne Babacar Sy Diouf Ndiaye Fashion taalibe Serigne Babacar Sy nekkee fii ci marché Thiaroye alors looy wax waa El Vision Média waaw marché Sicap Mbao waa El Vision moom dama naan mention spéciale ñoom parce que ay jeunes lañ nekk si jaamu gën Sicap Mbao di fi def loo xam ni dafay manqué woon parce que tey ku fi am ngénte ku fi am ay jàng ku fi am loo munti doon ñoom dañuy ñëw si gratuit amul dara lu lay fayew dafa nekk jeunes yoo xam ne ñun ñoo leen war a jàppale quoi man ñoom li ñu doon ni damay ñaan yàlla ñoom ay télé télé télé am ay rajo yu rajo rajo parce que bërëb bi dafa nekk bërëb boo xam ni xool bi moo baax. billaay wallaay nekkul lu mu toog a tax mu koy wax su ma ko gis woon si moom tamit tey doo leen ñëw fii. wala parce que man du ma turiste. ku ma wanul lu rafet si yow. soo fi ñëwee am naa fulla bu ne ma ñëw na eh bul ñëwati sama palaas waaye dafa nekk koo xam ni waa ju baax la. ku gëm boppam la mhm. te boobu léegi mu ngi dem xaaru ku ko jàppale saar la wa mairie bi saar war a jàppale de parce que lii dafa jafe jeune bu ut ay matériel am di liggéey ko xam di wane lu nekk ci goxam kooku dafa jara jàppale quoi di ko yàlla defal ca lu nga sama xol laa ko tibee quoi ko yàlla yokk ba lii mu nekk lu ëpp njortam quoi yàlla defal ko sutura ak teraanga laa koy looy wax say client waaw maa ngi naan samay client tamit comme d'hab rek mhm. li ngeen doon ñëw di fekk fii lu ko gën a garaaw bi ay bagages yu bees lépp a fi Ndiaye Fashion daal moom fii nekkul lu dul jeunesse bi rek waaw jeunesse Sicap Mbao jaamu gën Fass ñëpp ku fi ñëw di nga gis sa bopp soobee yàlla te soo ñëwee loo mënti yor tamit. ñu dañ si jàpp la jaay quoi benn instant. jërëjëf waaw. voilà merci beaucoup euh, Vieux Ndiaye ñu gën koo xam ci Ndiaye Fashion nekk taalibe baaba Babacar si nekk fii ci marché Sicap Mbao euh, macha allah yor prêt à bu baax nee naa leen képp ku bëgg lu baax rek boo ñëwee fii dina la jaay yu baax a baax macha allah Vieux Ndiaye la woon euh, ci seen biir émission mode et style ci seen chaîne bii di Elvision Média jaa jëf jaajëf El Hadj jaajëf Bamba assistant merci beaucoup prochaine fois. voilà kon jàngeen ngeen jëf mbokk yi lii leen indil loon ci seen biir émission mode et ci seen chaîne bii di El Vision Média ñëwoon nañ fii ci Sicap Mbao seet si ndaanaan lu mag li am nañu mbégte bu baax itam euh, ci yéen yi nga xam ne yéen ay internet yi dinaa la képp ku bëgg lu baax ñëwal fii ci Sicap Mbao seen Ndiaye Fashion tout est possible